asalaamualeykum wa rahmatullah université Cheikh Ahmadul Khadim di université bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ubbi ci Touba ñoo yëgal képp koo xam ne ci atum 2022 nga am mbag ñu bindu mi yokk nañu ko ba le 27 octobre 2022 kon képp ku bokk ci ñooñu te bëgg préinscription ngir wéyale am njàngam ci làkku arab wala xam-xami lislaam yi mën naa bindu ci plateforme bii ci adresse bii admission point ccac point edu point sn képp koo xam ne tàmbale woon na te àggalewul am mbindam mën na ko àggale ñuy fàttali nag ne képp kuy dugg ci plateforme bi na nga jëfandikoo ordinateur te bañ a jëfandikoo téléphone. ñi nga xam ne nag dañoo am bac lu jiitu 2022 ñoom dañuy dugg ci plateforme bi xool këyit yi ñu leen laaj ñu yónnee ko parpos ci adresse bi complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation CCAKEF BP 7. code postal 22 3. yéen ñi nga xam ne itam da ngeen a am doom ju jàng alxuraan ba mokkal wala mu jàng ba wàcc te ngeen bëgg mu jàng xam-xam maanaam majalis njàngum lislaam mu wér te set complexe bi mu ngi leen di xamal ne ubbi nañu fi ab majalis muy jàng xam-xam mu wér ànd ak diplôme yu ñu nangu ku ci bëgg bind sa doom mën ngaa dugg ci adresse boobu ngeen di gis muy admission point ccac point edu point sn

77 ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér.